waaw fii ndey jën tàkkam bi am am benn talasim boo fi joxoon pour tànk mu métti waaw mën naa ko waaw moom nga doon wax ne waxoon nga ko waaw waaw incha allah

うん。 পারবেন Diouf Diouf Diouf Diouf Diouf di leen baal xàq di ñaan yàlla mu boole ñu jéggal di ñaan yàlla weeru gàmm bi ñuy génn de weeru xéewal yal na ci yàlla faccu na aju ñu ñëpp zahiran wa baatiran ci barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëw tey ci alquran comme nen ko daa defee ci lenn lenn moo tax maa ne sirrun min asaari lenn ci mbooti ayatu kursi yu mi nga xam ne moom la sallallahu alayhi wax ne mooy sayidal ayaat pourtant arxuraan lépp a baax de mais gis nga sallallahu alayhi ci jukki bii ne mooy sayidul ayaat maanaam ay yëpp bi mooy seen sang mu ñëw ci yaasin ne mooy xol alquran ba pare na salaamun xawlan mooy xolu yaasin muy wax ne jotaguma nag xadis bi waaye dégg naa ñu ne moo ko wax euh, mu ne xuz min al qur'ani ma shi wala boog liman shi ita xaw ma tax am naa amul yàlla xam nee nan moo ne jële ci alxuraan bi def ci lu la neex mais benn bi moom jàng naa ko nee na amul lu gën a kawe lu gën a màgg ci faj aajo wala faju feebar lu gën a màgg alxuraan xadis boobu jàng naa ko boobu moom gis naa ko waaw amul lu gën a kawe amul lu gën a màgg amul lu gën a gaaw ci faj feebar lu dul alxuraanul karim mu am ñaari façon fajin nag ki ko tiim di jàng leer gi di ko dugg xolam di dal di féex ndax li ko waral mooy fa iza sawaytuhu wa nafaxtu fiihi min ruuhi faqahu lahu saajidiina loolu moo waral ba tey beneen dalil la ci gàmmu yàlla nee na bi ma bindee sama maam sunu maam ñun sunu maam la ñun mais jaam la ci yàlla muy aadama yàlla bind ko ci loxoom yu tedd yooyu aadama kese ko am amul kenn ko yàlla bind ci loxoom yu tedd yooyu amul yi si am na fu mu jaarale aadama kese la bind ci loxoom def ko statut ba mu àgg yàlla ëf ci ruuxam pourtant am na lu jege ci yàlla dem ci aadama te yàlla wàññeekuwul ruux googu mu ci ëf yàlla moo jël ci ruuxam nee na maa jël sama ruux man yàlla ma ëf ko ci aadama pour mu mën a nekk nit di dund te yàlla wàññeekuwul <laughs> moo tax ñuy jéem a jàmm Seydi a Hadji Malick man leen da ngeen a jàngul wa innahu is aradallahu nashatana abana min nuurihi nuural nabil alami foofu la jógee waaw leer googu gi yàlla def ci ñun ñëpp mais ka ca gën a màgg nag ci ñun gën ci ci ñun mooy sallallahu alayhi wa sallam waaw moo tax ñu di màggal juddoom moom ndax juddoom a gën suñu judd ñun waaw doom moom moo gën suñu judd ndax juddoom moom sunu sauvetage ñun ñëpp ndax bu sallallahu alayhi wa sallam judduwul woon alxuraan du wàcc bu alxuraan wàccul woon du ñu xam ne ni jaamoo yàlla kon ñun ñëpp safara leen jëm <laughs> ah yàlla ñu ci musal kay kon guddeem loo ci waaye def xeeb ko ku ko doy dal ku ne yàlla doy dal la waxuma la léegi Tiwaawan mais partout dans le monde ñëpp ay gàmm màkka ba nit ñi wax sax mi ngi gàmm gàmm na ren màkka ci boppam gàmm na ñu def ko en direct foofu foofu la jëm foofu la jëm ba yàlla baa ñu fi rek. na ni dem rek tànk kanam la amul tànk ginnaaw maa ngi déglu keroog président président Burkina Faso mm-hmm. mu def ci discours bu macha allah tabarakallah waa kay bañ dama bañ dama arséri vidéo bi dinaa la koy yónnee moo tax ñi koy xas dama leen yéen a ngi tardé parce que nit ñaa ngi dem leen fi bàyyi maka ngeen ngeen fa ngeen jokkoo leen ma ngeen gëm sax makaa ngi gàmm ndax ñoom itam suñu gàmmul xas la ci ñoom ah salaay salaam ci ñoom lu juddoo buñ sàgganee ba ñun ñu gën leen a xam rasulullah ba di ko màggal ñoom ñuy tere ne tardé nañ ñëppee gàmm partout dans le dina am dina am gis nga sëy ah, nañu fi yàlla bàyyi rek nañu fi yàlla bàyyi rek nañu dem rek. lu jamonoy gën a dem ngay gën a xam nitu yàlla. xol bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi zalika fal yafrahu ki ñu koy wax sirru kun fa yakun bu ci kenn mère nit nak ba xex ci damay wax lu leer nak bu ci kenn mère nit ba mu jaral la nga teju ndax li dedet te dama ni nit ku wala julit pire bu xamee lan mo julit dina dépasser xex doomu aadama ndax wax naa ko léegi na ñun ñep fi ñu jógee ruux gogo yalla def ci ñun malaika yi gogo lañu sabal ruux googu la malaate yi sujjootal mais mais mais pas Adama en personne ruux googu jege ci yàlla dugg ci Adama moom la malaaka yi sujjootal moom la Iblis lànk na ko sujjootal ñu dàq ko ruux googu moo nekk ci ñun ñëpp muy ruuxu Seydina Muhammad sallallahu ma wasallam maa fil bariyati man lam tasqihi min nuurihi karama teraanga la bu ko yàlla defal amul dara looy gis fi luy dox lu mu manti doon garab yeeg lép laa la wax tu loo xam ne du leeru rasulullah moo koy doxal jeex na sëriñ dafa gis surtout Ali Imran bi ay bi bi am alif lam mim wa alif lam mim waaw xam nga koku bop sar la moy timit moy bop saru bakara xam nga bakara alif lam mim zalkal kitab koku ay huruf la yalla di junj diko def ci tere bi waye nak dang koy am na nag ñu ko mën a décoder am na ñu ko mën a décoder am na ñu koy décoder ba gën a ci axamu sax koo xala ko yesu xurufu nuuraani yi fukk ak ñeent la xurufu zulmaani fukk ak ñeent la léegi axamu sax koo xala yesu boo ci yokkee tanaru mooy fukk ak ñeent yi fii ayatun bayinaat wa oxaru mutashabihaat waaw moo tax boo demee ci ku xam yàlla la wala boo ku xam turu yàlla soo ko joxee turu yàlla dina la ci génn lan moo ci nuuraani génnal la ci lan moy zulmaani yu wax la li nga ci wara laal bo ci baña gañu ak li nga warta laal mais tur yalla bo gis amna na yu amna na yu ci lettre la ko mag ñi seppee ki lan tudde kun fa yàquun macha allah waa bu dee bu dee ilu malaaka la bu dee iilu la waaw kii eh, la kii nu ñu koy waxee malaayika la waaw foo gis iilu rek comme jabra yaa iilu miikaa iilu asrafiilu azrailu ay malaaka la mais bu dee rawaan boo koy génne ci ki xam rawaan ilu lay wax ilu ilu du nekk cinquante deux mais quarante ilu muy quarante et un waaw loolu tamit beneen beneen science la buñ lay jàngal nga xam ne aaya bi tey aayatu kursi bii mënoon naa tal jël jumla bi yépp tugg ci tëgg ci turu yàlla tëgg ci rawxaan tëgg ci xuddaam waaw mais du ma ci mën a génne malayka malayka iilu iilu mooy malayka iilu mooy rawxaan dafa jar a xàmmee ñu bëree ngi gaañu naan rawxaan bi fekk rawxaan bi laalu leen malayka la nii woote malayka xajul ci ñoom waa kay waa kay ilu bi mooy rawxaan ya, mooy rawxaan eh, yaa ngi yóbbaale fil bi yaa ngi yóbbaale fil bi yaa ngi yóbbaale fil bi kenn dellu ginnaaw tuuti ñëwal ci man waa baax na mu dañ la koy non dañ la koy jàngal lasaraal du nonude. de <laughs> ah waaw waaw cinquante deux mooy ñu ci boole Hamza bi rek tikkante bi quarante deux bi ndoy dugg ci rawxaan cinquante deux bi mooy dugg ci malayka waaw xam nga juróomi juróomi martab la juróomi martab la pour nit ka àgg ci yàlla bi ci jiitu bi ci gën a suufee mooy naasuut laqad xalaqnal insaana fi ahsani taqwimin su madarnaahu waaw mooy naasut mooy man Assane Diagne Assane Diagne laa tudd am naa soxna am naa njaboot damay tëdd na la am naa compte bancaire jeex na naasuta nga kooku yaag ñëpp ci yem rabu ali sax la ko dàq ñu la ko ëppalee mais xam ne lii taxul ñu bind la nga góorgóorlu ngir mën a bokk ci jabarut mënoo mënatoo doon yonent mais nga jéem a bokk-bokk ci yoon ci ci wàllu yu yi bi bu nit ñi tëdd nelaw nga yeew di naafi la yalla neena jambi du deñ ci di ma man yalla di ma di dafi farata di ma naafilaal ba man yalla dama muju nek jam bobu waxin la may nek nopam may nek lamiñam may nek tankam may nek loxom lu mu wax maka wax lu mu def maka def Nafila la koy may may nga dugg ci jabarut gor lo te bayiwo di nga dem bu dugg ci malakut set wetch jëmm ji mooy nekk nit waaye jikko ji yëpp malaayka lay doon soo góorgóorloo nga dugg ci laaxut <laughs> mooy yow seey nga ci yàlla li ma dégg ñu ne moom la Cheikh baam Bamba waxoon ne ku munta xaajale ndox ak suukar munatoo ma xaajale man ak yàlla waxin la nit yàlla dafa am foo xam ne buñ fa tolloo la ñuy wax bul ko sax jéem a critique jeex na bàyyil noonu mu jàlla dan fay toll soo ko góorgóorloo nag da ngay dem ba egg ci fi nii wax nag xaaxóot foofu moom amatul man la moom la rek moom la moom la kese bis boo nee man la daanu huwa rek malakut mooy palaasu malaaka yi nin sellee ci ñàkk mooy yàlla nit dafay toll da ngay dem ba yow lépp looy lekk sax da nga koy vérifier ndax seet na wala setut boo amee sikki saak nga teg ko fee maa ngi déglu keroog euh, sëñ Habib si bu xalif général Tidiane yi di ko nettali nee na sëñ Abdou dalaa def lu ñëw rek mu jox ko nit ñi lu ñëw rek mu jox ko nit ñi mu xadam yi toog na ko waa sëñ bi ñun sànq ba tey ñu ngi toog rek te lu ñëw nga joxe ko mu ne leen damay fàtt turu góor gi ne leen du lu ñëw rek dugg seen biir yi waaw dafa am loo xam ne xajul seen biir yi ñun lu dul lekk ñun duñ leen ko jox yéen lii fi nekk nii yéen waru leen ko lekk moo tax ñu koy génnee da nga fay àgg way la yombul nak, <laughs> yombul ba que salam salaam nee na léegi sama ummati gu ñu fini xalaatatuñu alal nan am rek waaw malaika ah malakut waaw arab la ko wax lolu ko wax loolu est-ce que fim ko dalil yàlla nee na alxuraan yëpp arab la alxuraan lépp arab la non yàlla nee na inna jaxal naa quraanan arabiyan loolu wax yàlla la kenn du ko dindi léegi nag fenn gisaguma dalilu waa jooju la may wax dama koy faxas subhaana lazi bi yadihi malakutu kulli shay'in malakutu boobu bul ko jàppee comme ni ñu ko mën a waxee être malakutu bi yàlla wax. nguur gee tax muy wax nguuram gi mu ma boppam téyel ko boppam kum ko neex la koy abal nanguwaat ko bokkul ak alamul malakut alamul malakut mooy le monde de célestes fi malaaka yi nekk kooku mooy alamul malakut bokkul ak subhaanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in du benn du benn de kon juum na bu indee aayam rek juum na bu duggoon ci alamul malakut waaw Mm-hmm. waaw waaye d'accord weddiwuma mais dafa jar def attention jar a gëstuwaat non xam nga scientifique yi moom li yàlla xam doy na mais daal ñun li ñu yàlla wax ñun te ñu ko mooy subhaana lazi bi yadihi malakutu kulli shay'in bu fekkee nag baat boobu la jël moom baatu arxuraan la te arab la bu dee nag aalamal malakut nag mu doog a dugg te ña fa nekk bu fekkee xam na leen ña fa nekk nag mu seet yan ñoo ci arab ak ñan ci arab koku mom benen monde la c'est le monde céleste bu fa munta ag mom bu mu sax wax <laughs> waaw ah arab ci lima japp man ci lima gem arab la ni wax da ngay deg arab par la force koko jangul fi Boy dekk diko dekk Wah masa waxuma sa dekk bil mel nga koy déggee bu malaaka ne tëll di nga deg arab di nga la par la force koko dan ne bo de dugal janna koko bo de dugal janna sa niveau alcorane fi mu tollu ah. appartement bu tollu ngay am waw waw waw non la de waratil ah? qur'ana tartila wa me baxna nafi nan dug rek nan dug rek nan ci am rek bu am baxna bu am baxna waaw ayo mu mel ni débat bi dafa ubbeeku <laughs> tay mom la débat yi ouvert bu ko défé ma ñëwaat fi tuuti xam nga euh sëñ sey wow wow wa almaru maa man ahabba mom lool la wax Nenek yang kenn ku nek ëlëk bis penc yak nga sop mbag ak mbag man rasulullah kuma sop ëlëk ëllëg maag yow mbag ak mbag ba aljanna moo tax sopp rasulullah di xewal kenn xamul ni mu tollu waaw waaw ka mi wax la bi gëna yomb bi gëna yomb sey bu yalla dogalé moko la fatiha rek may alquran fatiha may alquran te mokal nga ko ñun mokal nan ko jeexna ar kaamil bi yëpp fatiha lay firi xaw ma na xameen comme déet nag à part fatiha li des ci Coran bi yëpp fatiha lay firi déggu leen ma de <laughs> dafa laaj ñu jàngal la ko waaw waaw waaw waaw mhm. pour wàll ne lépp mi ngi ci faatixatul kitaab beneen ba bu la yàlla dimbalee ba ngay julli nga taxaw penku yaakaar na penk nga jàkkaarloo fekk jàkkaarloo ak penku yow yaa gis penku mais yàlla mi ngi jàkkaarloo yow nga naan ko alhamdulillahi rabbil alamin arrahman rahim mu naan malaaka yi deggu len maliki yawmi mi diini malaaka ngi sama jambi, iyyaka na'budu wa iyyaka nastain mu naan nag jeexna na ñaanal loo bëgg nga ne ko ihdina siratal mustaqim waccu nga ak mom siratal lazina amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wala dalin waccu nga ak yalla waye nak bu mu nga nga nagu ndax wala ya amunu makrullah illal khasiruna motax yalla di bëgg chaque jour 5 fois par jour nga ñëw fedeli sa foi bobu mo xamne yow ku gëm nga soko bayiwul respecter 5 prières yi julli gi ci bopam mo lay defar yow nit ki ba nga set wicc leer nañ lepp luy tay moma jaaxal lek ci Sénégal dama ne est ce que nit ñi ñu ngi julli est ce que julli bi nangu na parce que da ngay dox ci mbedd fel nit rek muy la histoire sank tata bi ma jël wajangi wacc xawa jogi waji jogi wu ko sax de mais da ko jogi mais amul waji bayil ah jeune la de xaw ma tax mi ngi julleem déet. am na benn waay. Mhm. Mhm. Mhm. waaw waaw waaw waaw waaw la. dëgg la dëgg la ndax ñoom macha allah li may faral di wax alxuraan bi benn la soo ubbee kaamil bi yëpp niñ ko bindee benn la xëy na peut-être tuuti différence entre warsh ak hafs tuuti différence njàngin mi tamit tuuti différence waaye lépp alxuraan la waaye yow nit ki sa bopp yow sa bopp ni ngay fonkee alxuraan bi ni ngay gëmee ne waxi yàlla la ba tiim ko di ko jàngee noonu du bokk ak Assane mi nga xam ne mi ngi jàng alxuraan te xelam mi ngi ci àdduna tolluwaay nit ki moo lay yóbbu foofu loolay waral mu jàngaloo ko fatiha boobu xam na ne fatiha bi benn fatiha la waaye ca njàngin ba moo ko daloon tamit ci beneen kilifa diina gi ñëwoon di ko laaj turu yàlla mu jox ko mu ne ko eh, bii am na ko mu ne ko waaye man joxuma la ko léegi nag tagal bin la joxoon yow nga laal man bi ma la jox ba ko góor ga laalee xam na ne moog ba mu jëloon du benn te même tur bi la. ci nit ki la ci yow ci yow la ah aha waaw moo tax yenn saa ñuy wax ne tur nga di ko jël ci ci ci ci ndigal ñu bëri nag dañ koy démystifier pourtant lu wér la lu wér da ngay dem ci site bi fekk ñu fay jaay terrain nga jël sa un million wala sa deux million jënd terrain bi yaa ko moom lew na la doom waaye taxul nga tabax de boo boo bañ problème taxul nga tabax de di nga dem fay ordre de recette am déet outil délibération loolu du ndigal ah autorisation de construire te yaa moom li nga utali ndigal moo tax bu kenn weddi ñu ba den fay demee si venance salaatu faatiha kenn du laaj ndigal ku ci jëlu ndigal doo ci am dara maa ko wax ñetti per yi boo ko weesoo doo ci jariñ lu wóor laa leen wax da dem ñu jaayante ñu jox la ko charte bi. Cheikh. waaw.

la la lu mhm. lu jur lii. Mhm. mu ni ko mu ni ko mhm. jeex na jeex na jeex na loolu rek la loolu lay waral ñu naan nag ci ut ndigal waaw lu wér la lu wér la ku ko weddi moom boo weddi rek xoolal nga defal nga xool amul ndigal ci wérde bi parce que wérde bi ngay jël ci lan lay joxaale ndigalu jawharul kamal ndax wasifa ci la bokk waa kay. mais kii doo ci weesoo trois doo ci jariñu maa la ko wax yàlla xam na ko boo ci weccoo ñetti per boo ko ci weesoo doo ci jariñu lu leer laa la wax boo ci amul ndigal doo ci jariñu boo boo ci amul ndigal doo ci jariñu lu wër laa la wax. la nga cee liggéey la ca topp bu weesoo ñetti per la ca topp sunu continu nu lañ koy versé ma wax la ko tey nga xam ko ah? maa la ko wax. waaw moo tax ñuy song Cheikh tay diko xass xas man leen continuer leen bu leen bayyi ndax yéen nga ñu yok tiyaba Cheikh Ahmed Tidiane Chérif du fi jeex compagnie ñom umzo gogo umzo la kay way umzo compagnie gogo. Cheikh yegone suma toge di la jew lepp luma amon ci yu sotel nan lako jeex na su sa der même chose ah waaw nañ continuer di yak rek ñu duñu yok tiyaba daf ñuy arranger ñu ñëw fii tuuti ndax dafa mel ni waxtaan bi tey daal neex <laughs> gars yi bëgg ñoo jàng <laughs> da ci am solo ndax ngir bañ nit ki gaañu moo tax en général euh, ñuy bëgg yu mel noonu ngay wéeto ko ci xam dara mo wax la ndax am na yoo xam ne jamono du neex ba ma jàngale ko fii xalaatuma ko sax Alxuraan laa fi indi aaya mais am na ci yenn tur yoo xam ne bu ma ko nattee xam ne du du waxu mbooloo duma ko indi fi donc lol day bax nga ñaaro ki ko ki ci xam dara mu jox la ci ay tektal nga mën jall sank rek sam ben way nga may wo dima laaj tour bi lembe jamono ji tiktok bi euh, Hashrona mi ngi lembe senegal lo ci ñaan yalla may ce ko Hashrona ah ah essayé woo ah la jógee foofu la jógee mais da nga ci laaj ndigal la di japp 8 iyyaka na'budu wala allahu muhammadu bo jëlee 158 fois 8 mu jox la 1264 bu la neex ngeen calculer ko batay dañ koy roccee ci tuhsharuna bi ci alquran boo dindee taa tombe rek mu jox la xasharuna donc luy ñoddi la mais nag damay wax ne képp koy zikar booy boo nga bàyyi xel li la yàlla di junj foofu huwa allazi zara zaralukum fi la ardi wa ilayhi tusharuna mooy ñun ñëpp fu ñuy mujje ci borom bi ñun ñëpp xasharuna boo koy liggéey loo ci ñaan yàlla mu teewal la waaye xalaatal na yow tam nag da ngay teew ci kanamu ay yàlla ñaan ci lu dagan ñaan ci lu dagan xaalonk la xaalonk siin su wow xam nga boo demee ci yàlla yàlla bëri na fi ñëw na neuf fois ci arxuraan ñëw na neuf fois ci arxuraan bii wa ilayhi tuhsharuna bii ñëw na neuf fois ci arxuraan ñëw na neuf fois ci ko seete am na xushara linnaas ba tey mais dama ne lii boo dindee lii mi ngi ni xasruuna xasruuna milliard xasruuna million xasruuna CFA noonu la ko joxee xasruuna kër xasruuna kër xasruuna jabar xasruuna jabar xasruuna oto xasruuna scooter ah, man amu ci ndigal bu ma ci joxe ndax moomu ma ko aw ma ci ndigal bi ma ci joxe dama koy leeral parce que dañ ma ci mais aw ma ci ndigal bi joxe wax dëgg yàlla aw ma ci ku ko soxla dema ci ñi xam diggal ñu jox la ko dafa fuite la dafa nekk fuite fuite la ay ay ay gars ñoo ko génn dugal ko ci TikTok bi waa ji naan xisroo na rial laa ci ñaanoon am na rial téye ko nii waaw benn waay di ci wax mais interpellé ko pour ñu waxtaan ci mu di ma daw te xamul ne man xam naa ko numéro téléphone la joxe saa bu ma wootee ñu ma ki ngay woo mi ngi jokkoo keneen mënut nekk 24 heures sur 24 mën a jokkoo keneen dina ma dégg ki numéro am commencé 78 interpellé naa ko faalewu ma te dafa xamul ne xam naa ci dara waaw xam naa ci dara xam naa ci dara. déedéet xasuru na milliard xasuru na million waaye joxe mu ci ndigal de pour muy leer joxe mu ci ndigal dama ko doon leeral ku ci mën nag boo ci mënee engagé wu nga engagé wu ci dégg naa téeméer bi baax na. boo jàngee benn fatiha ak xasru na téeméer baax na tur bu leer naññ la nuraani yu la du du turu jinne du talsam tur bu leer naññ la ci allahu muhammadu la jege di samaneete huruf waaw iyaaka naabudu rek iyaaka naabudu kese 158 la waaw iyaaka naabudu 158 la wa kay boo jëlee yaaka quatre lettres la naabudu quatre lettres la muy huit kon danoo jël nombre bi multiplier ko ci lettres yi dégg nga wax ji yaakaar naa abur 158 ñu multiplié ko par nombre de lettres lettre mot bi mu jox la 1264 di xasruuna boo jëlee ba tey allahu muhammadu même chose li leen di wan ne yàlla salaay ah, salaam ke sela faale gis nga yaakaar naa abudu boobu boo ko jëlee 158 la muy allahu muhammadu te yow ci biir jàng bi yaa nga ne yàlla yow kese yow la ñuy jaamu waa lu ci indi muhammad moo lay wan ne munoo def lu saf yàlla te jaar royoo ko ci rasulullah mooy bunt bi ilay yonen anta baabulaahi ayu imrin ata amin xayrika laa yadxulu waaw loolu loo mënti indi ci lislaam gi ta roye woo ko ci rasulullah yàlla da koy sànni ci biti moo tax mu kole ko noonu aywa ñu ñëw ci leçon bi ay lu wax kun fa yakun